jugal te sant ko nag sëriñ bi may na la sak ndax la gaaña bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox ndigalu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te wër ci ndigalu Serigne Cheikh mu Serigne Saliou xalifa Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wër Serigne Saliou ndigal cuun xalif général kullu cantakun yàlla na fi yàgg lool te wër moom mooy yëgal mbokku jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokku cantakoon yi màggalam 17 avril bi nga xam ne dinañ ko amal ca bërëb ba doon amee ak anam yam doon amee ca Medinatu Salaam lee tax muy biir Mbuur ak la ko Ndigal Thioune di jiital ci wote googu rakkab yu tedd yi nga xam ne saa su gëstoo ginnaawam ñu ànd ak moom di wéye ndigal ak way jur yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi nekk ci ginnaawam waaye bàyyiwul benn mbokki taalibe ak foo mun di bawoo Serigne Saliou Ndigal Thioune nee na 17 avril bi dinañ ko màggali na ko Serigne Béthio doon màggale ca Medinatu Salaam muy rendi bernde jàng xasida jàng alxuraanul karim waxtaan ak mbooloo mi li ñu yàlla defal Serigne Saliou Ndigal Thioune ne bu ñu war a fonk la ñun cantaakoon ndaxte lépp amee muy 17 avril 1946 bés ba sëriñ Béthio Thioune way juróom bu baax ba daje woon nag sangam bu tedd ba sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou digal Thioune di gën a fàttali mbokki cantaakoon yi ne lu ko ca def ndax bés boobu benn fàttaliku ko ku nekk ak képp koo xam ne xam nga la la sëriñ Saliou Mbacke defal defal ko suñu sang bu tedd ba sëriñ Béthio Thioune jaamu sëriñ Saliou kon mbokki cantaakoon yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bés baa ngi noonu ñuy woo daara yi yëpp woo jëwrin universel localité yëpp waaye di woo jëwrinaat yi nekk ci biir gox-goxaat yi yëpp na ku nekk ànd ak mbooloom ñëw Medinatu Salaam ñu màggal bés bu tedd bopp te képp koo xam ne yaa ngi ñëw fexeel ba am ñoo àndal ngir ñu xam dëgg dëgg mayu sëriñ Saliou ya ca Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou Mbacke bés baa ngi noonu samedi 17 avril ca Medinatu Salaam ca Mbour waatunu Medinatu Salaam waatunu Mbour waajal leen ko ndax bés bi dina nekk bés boo xam ne cantaakon yi dinañ wane dëgg dëgg mayu Serigne Saliou yi nga xam ne may na ko Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou Mbacke ñuy ñaanalaat Cuun yàlla saxal ko fi ngir mu eggale naalam si liggéey bi nga xam ne way juróom bu tedd ba di Serigne Béthio Cuun bàyyee na ko ko fi nañu waajal bés bi muy samedi le 17 avril 2021 ca Medinatu Salaam